mën naa. waaw bien sûr waaw c'est-à-dire gis nga foofu. je me souviens man mii au cours audience bu man ak moom rek ak yàlla. je lui ai le président lu tax sa parti bi donc donc structuré nga hiérarchiser ko. je me souviens c'était en août 2015. Mm-hmm. mu ne ma yuusu yàlla daf ñu dimbale ci APR. ba nga xam ne presque dañ ko sos rek mu ñëw au trois ans après mm. mu ne ma mais APR en vérité du nekkagul parti. APR c'est une euh, machine électorale c'est une machine ak gagner des élections te yàlla defal nañu acquis boobu mu ni ma nag euh, dafa am ay problèmes au niveau des responsables yoo xam ni qui sont des défauts mm-hmm. te défauts yooyu benn siis nañu ñaar soxor nañu ñetti iñaan nañu mm-hmm. te ñooñu boo jéemee nga hiérarchiser discipliner boo deful ndànk parti ba dana tas dafa mel ne l'histoire jox na ko raison. Eh, eh, eh, man moom yàlla rek mu wax ma lii. beneen ba et mooy responsabilité bu ñu ko doon situer par rapport ak moom d'abord bu jëkk bi man maa ngi koy situer ci suppression post premier ministre bi en 2019 mm. nga xam ni kenn nekkatu fi ñëpp a te comme on dit wolof di wax et bu ñu yemee am ñu gedd seen cër. waaw ah, am ñu gedd seen cër. Mm-hmm. ensuite ba mu defee loolu sax bu fekkoon ni au niveau du parti hiérarchisé ne mu am koo xam ni mi ngi koy feeñal ndànk-ndànk ñu xam ni kii kat gannaaw Macky moom mooy ñëw tey du ñu am problème bi parce que ña koy nangu daañ ko nangu ña koy bañ daañ ko bañ ca teel ga et puis nit ñi danañ xam sur qui compter et qui ne pas compter kon nag responsabilité boobu am na bon doon naa man xaw ma d'accord ci yéexal wax candidat bi mais finalement gis naa ni moo am raison parce que bu ko gënoon teel wax aussi euh, caaf gën a xëm. kenn du liggéey. et surtout gars yi danañu créer ay conditions yoo xam ne xëy na mën na mën a tas parti bi donc bu fekkee am na responsabilité euh, lié na à à loolu parce que bu nit ñi teeloon xam ni xëy na du du ak beneen bi mooy euh, incertitude ci dana nekk candidat ak du ko nekk. Mm-hmm. kooku aussi. benn ci ci ci beneen facteur. Mm-hmm. du kooku moom du sax responsabilité. mais c'est un facteur boo xam ne xëy na xaw na aggraver un peu un peu la situation mais l'un dans l'autre yooyu yëpp c'est consommé mm-hmm. léegi li fi des comme on dit bi bu an bu ndox tuuroo an baax fa des. am na ñu naan sax ñu rootiwaat. olof bi am na ñu naan ñu root ñu rootiwaat mais xam nga lu tax ñu wax an baax. Mm. ça veut dire am na lu yàqu. wala boo mënul rootiwaat. waaw parce que euh, am na lu yàqu am na loo mën récupérer maanaam ya a eu des des cassures. Mm-hmm. y a eu des pertes. mooy ñii di dem di présenter wu candidat ak yooyu yëpp et comme a si bien dit le doyen Albert en fait ñooñu du Amadou Ba moo war wax ñoom déedéet ñooñu ñooñu c'est le président du parti le le président de la coalition moom moo war gérer ñooñu